فالسنغال يهوي تتزل محمد ويعبد ربا جل شانا موحدا فمن ظن غير هذا فظنه سقيم عليل باطل لن يؤيدا رويدكم أهل الكنيسة رويدكم أهل الرئيسة رويدكم ahlu politique ruwaydukum ahlal kufri ruwaydukum ahlal yahudi ruwaydukum ahlal nasara ruwaydukum ahlal kanisati lam taraw mada dahri ana qad tarakna muhammada ruwaydukum ahlal kanisati lam taraw mada dahri ana qad tarakna alquran <coughs> mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen wàccee seen wàccuwaay kii wax na thème bi amatina doole lool dëgg-dëgg fu ñuy jëleetee ku mel ni Mawlaaya Cheikh al Islam ana fu ñuy jëleetee ku mel ni Baye Niass ana fu ñuy jëleetee ku mel ni Abdou Aziz Dabakh ana fu ñuy jëleetee <clears throat> ñu mel ni ñoom nga xam ne ñoo doon taxawal Qur'an jooykat yu màgg yooyu défendre kat yu màgg yooyu. nga xam ne fu ñu waxee alxuraan rek ñu jóg sol seen dàll dox ci li ñu war a dox wax ci li ñu war a wax bind ci lañ ñu war a bind lum aaju rek ñi taxawu ko ana fu ñuy jëlee te ñoo xam ne bu alxuraan soxlaa ndimbal ñooy taxaw jooyal ko su taxee joxe ba kenn ñooy taxee joxe seen bos su taxawee mbind ñooy taxaw mbind buñ fàtte ne alxuraan waxoon nañu ne falan tarda anka al-yahudu wala nasara hatta tatabia millatahum yahut ak nasara ñoom duñ musa gërëm duñ musa d'accord ne l'islam mooy diini alquran ne woon na wa man ghayra islam diinan falan yuqbala minhu ku jàpp leneen lu dul islam duñ ko nangul l'islamam te l'islam moom du wér mukk lu dul alquran ndax booy julli mënoo nekk julit lu dul da ngay julli te julli nga alquran munoo xam dara ci mbiram lislaam loolu da nga jàngal Qur'an ndax mooy leetar bi yàlla yónnee doomu aadama yi ngir ñu war koo jàng kon nag ñoom liñ bëgg mooy yuriduuna li yutfiu nuura llaahi bi afwaahihim wa yaaba llaahu illaa an yutimma nuurahu walaw kariha al ñoom daal liñ bëgg rek mooy fay leer ak yàlla ndax Alqur'an bu fi jógee koo moom su fekkee jàngatuñ Alqur'an doo nga dara amatul ci amatul ci kaw suuf kon ñun fuñ jëm mooy lislaam fay na seen bëgg-bëgg du lenn lu mooy loolu. ndax xeexee nañ lislaam nu ne waaye gis nañ ne xeex bi nga xam ne moo ko mën a fay mooy nañ fexe fay daara yi rek ndax bu fekkee ne nit ki daa dem ba nekk mag nga bokkoo dévier loolu du sotti moo tax ñu dal ci gone yi léegi nag naka ngay mën def ngir fay alquran mooy da ngay fexe jàpp sëñ daara yi ñi nga tëj leen ñi nga tuumaal leen ñi nga sànni leen ñi nga bundu xatal leen waaye loolu yàgg na fi lool waaye du fi mësa jóg ndax xoolal bu njëkk cheikh omar fouti yu taal moom mi nga xam ne moo njëkk def jihaad ci lislaam fii senegal loolu la woon dégg nga fekkoon fi ay yéeféer war indi lislaam leeral ko ñu ne doog fi wootee mu xeex ak ñoom naka noonu Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul jëlee nañ ko senegal yóbbu ko ngir lan mu bàyyi alquran ji muy woote mu bañ naka noonu Cheikh Seydi Aji Malick naka noonu Maalaay Ablaay Ñas def nañ ko noonu ba taxoon sax mu gedd Sénégal dem dégg nga Gambia gannaaw gi nag xéwal goo xam ne yàlla war na koo may waa Sénégal dégg nga muy xilaafatu ñëw dégg nga moo waral mu ñëw toxu si waat Sénégal daal di fi juddoo dégg nga mu jaadu juddoo ci Taïba day naka noonu Mawlaay Cheikh al Islam nekkoon boo xam ne bu kàccoor woon boo xam ne gëmutoon yàlla gëmutoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu ko neex na daan def lu ko neex la daan wax waaye musta ñeme Mawlaay Cheikh al Islam ngir lan ngir dëggoom ngir lan ngir njàmbaaram ngir lan ngir jeex takk ndax wax nañu ne bu leen jublu kenn lu mooy yonent bu leen jàpp lenn lu mooy alquran alquran daal mooy mbir mi mooy téere boo xam ne kitaabun min al mawla al jalilu jalaaluhu dégg nga mooy téere bi nga xam ne moo jógee ko ci yàlla te it moo fi des day lu moom rek dégg nga a jeex kon alquran mooy bi nga xam ne laa yaxaafu zawala kon ku fi bëgg a al alquran rek yaa fiy jógee moo tax Baye waxoon na ne fa Sénégal Sénégal gii daal yéef yi dégg nga mi ngi tàpp rek taatu zilli muhammadin ci roon keroog yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam Sénégal gi moom dégg nga mi ngi ci roon yonent bi sallallahu alayhi wa wa yaabudu dañuy a ban dégg nga borom bi nga xam ne jàlla màgg na chenan mbiram mohada muy muy ku ñu war a wéetal Sénégal ki ñu war a jaamu mooy yàlla yàlla rek lañ jaamu yàlla rek lañ bëgg yàlla rek lañ topp gëmuñ kenn toppuñ kenn bëgguñ kenn ku ma yàlla kon képp koo xam ne bëgg nga ñëw fay alquran ngir jëlee ko fi dëgg-dëgg yaa fi jogee rek yaay fay ñaata buur ñaata kilifa dégg nga ñoo fi ñëw falu dégg nekk ci kaw bopp nit ñi dégg nga jiite wuñ dara bëgg a xeex alquran waaye alquran jëlee ne fii dégg nga limal koo lim rek da ngay ñëw jóge ko fi sa morom ñëw toog kon nag fii moom ku fi bëgg a sax da ngay sax dégg nga ànd ak ñooñ alquran day ndax fa man zanna képp koo xam ne njortu na xayra haada lu lii mooy nit ñi daañ gëm alquran danañ ko jàng daara yi dana gën a jolli dana gën a tàkk doomu aadama yi danañ mokkal alquran gone yi danañ ko gën a bëgg dégg nga danañ leen yar ci daara yi dégg nga danañ bay danañ def lépp lu fi mag ñi bàyyi woon ñu nekk ci képp ku njortu leneen lu lii fa zannahoo jàppal na njortoom loolu saqimun daa nga daa feebar de waaw alilun dégg nga lu lompañ la lu néew kattan lu néew doole le baatilun neen la lañ yu ay yedaa ko dëgëral de képp ku njortu leneen lu dul lii lam njortu na xam ne du wér dégg nga nañ leen jox ay milliards lu mu bëri bëri ñu financé leen ngir ñu fay alquran dëgg-dëgg mënuñ koo fay yàlla moo ko yëkkati dégg nga taal bu tàkk la te gis nga alquran ji soo ko bëgg a fay mi ngi mel ni nga fekk rek dégg nga lampe pétrole mu ngi fekk nga mel ni safara suy tàkk dégg nga jël pétrole sotti sa ngir mu fay jàpp pétrole bi jël bërigo bi jàpp ne ndox la nga jël ko sotti ko ci safara sa ngir mu fay dëgg-dëgg yokkoo ko rek lu may tàkk-tàkkal day waaye du ma a fay de dégg nga kon nag ruwaay dal leen ruwaay du kum dal leen ahlal kanisati yéen ñi nga xam ne yéen a nekk si nga xam ne yéen a jaamu leneen lu dul yàlla yéen ñi nga xam ne yéen a ànd ak gouvernement yéen nga xam ne yéen a ànd ak nasaraan yéen ñi nga xam ne yéen a ànd ak yahud rooy dukum dal leen ëlal kanisati lan taraw du ngeen ñi mukk ma da dëri diirab jamono ana xan tarak na muhammad ñuy bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam duñ ko mas a bax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dégg nga ku ko dégg nga bëgg a suufeel yaay suufee alquran ji ku ko bëgg a suufeel yaay suufee loo bëri bëri kattan luñ la jay ci mbiram aduna xamal leen waaye la yàlla moom du jeex mukk kon nag yal na yàlla dëgëral ñooñu alquran yal na yàlla benn leen ñooñu alquran yal na yàlla taxawu ñooñ ñooñu alquran lii du lenn lu mooy mbir la moo xam ne rek dégg nga seen maam yoxoon waa dëkkal mu ne démb mooy tey ñoo noonu on kaa ñoo noonu kii dégg nga ñoo noonu alquran démb ñooy noonu alquran tey seen doxalin yi nag ñooy wute dégg nga jamono yële nañ ko doon xeexee ak jamono yi nañ koy xeexee wute na léegi nag niñ koy xeexee mooy fexe ba gone yi nañ fexe génnee ci ñoom dégg nga yarab islam nañ fexe génnee ci ñoom bëgg njàng alquran léegi nag ñu ngay favoriser leneen dul alquran dégg nga favoriser ndaga favoriser sabar dégg nga jël ko finance ay millions gone yi di ko gis ñu koy génnee ci tele yi jamono ju ne ñi jàpp ne loolu mooy dëgg te fekk du dëgg day ndax ndaa ah, gone moom li muy gis rek mu taaru loolu la xam te fekk xamul li ci biir zuina li naa subu cewaati min nisaayi wal banina wal qanaatiri al muqantarati min azayb wal firati wal xayril musawama léegi nag loolu taar-taar la boo xam ne rafetal nañ leen ko su fekkee ne amoo àndoog sëriñ bu mat sëriñ dégg nga wala nga nekk gone sa xel soreegut yooyu nga gis da jàpp ne mooy bëgg-bëgg bi dangay ngay jàpp ne mooy mbir mi da ngay jàpp ne mooy taar bi génn télé woy musique ndaga fecci yooyu ngay jàpp ne mooy mbir mi te fekk loolu dara lu muy mataanul xuruur la moo tax alquran ne dégg nga innama alxayaatu dunya laibun wa lawun wa zinatun wa tafaaxurun baynakum wa takaasurun fil amwaali wal awlaadi loolu mooy dégg nga lislaam mooy mooy mooy adduna adduna du dara dégg nga lu muy mataanul xuruur la ñoom nag jaayee nañ leen ko ñu jàpp na ñoo nekk ci dëgg tax ñi bu de xatal ñooñ alquran di leen torturé dégg nga di leen nattu waaye loolu du yokku dara lu mooy yokku lislaam dégg nga lu mooy yokku ko doore lu mooy yokku ko kattan léegi nag seen xërëm yi ñu ngi koy sampu ngir ñu koy jaamu dégg nga góor jigéen yaa ngi xas ci mbir mi ñu bëgg koo wéral dégg nga waaw léegi sax da ngay dem ba gis koo xam ne kii agressé wala muy sàcc yi wala muy def ko suru noonu wala muy góor jigéen wala muy kat wala muy dégg nga fecckat ñooñu ñoo gën a kawe ñooñu lañ gën a fonk ñooñu lañ gën a bëgg ñooñu lañ gën a yaatal ci ñi nga xam ne ñoo jàngale alquran waaye nag ñoom nañ muñ nañ xam ne démb moo doon tey alquran ana lu tax ku koy jàng nga ne duñ ko dóor loolu mënta ñàkk alquran ku koy jàng faaw ñu xatal la faaw ñu dóoral la faaw nga sonn faaw nga xiif faaw nga mar ndax mooy wax ji nga xam ne dafa diis inna sanulqi alayka qawlan saqila ñun yàlla dinañ wàcce ci yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dégg nga wax ju diis wax ju diis jooju nag yow mënoo ko am ci dégg nga sedd sedd yonent bi sallallahu alayhi wa njëkk ñëw ci moom ñu naan ko iqra dañ koo xoj dégg nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam njatti ko mu ñaqatoo xeba ay baxatam génn yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na aaya yoo xam ne bu ñëw ci yonent bi yonent bi dafay ñaqatoo xeb dégg nga am na aaya yoo xam ne buy ñëw ci yonentu bi sallallahu alayhi wasallam yi du dafay daanu xam ngir diis ak alquran ja waaw ginnaaw aaya boo xam ne bu wàccee ci yonentu mu daanu xam ngir diis ak aaya ja yow nga ne danga ko am ci bànneex loolu mënta nekk yow nga ne danga ko am ci neex-neex loolu mënta nekk alquran daal ku koy jàng faaw nga xiif faaw nga mar faaw nga nam moo coono faaw dañ la dóor faaw dañ la ceene faaw dañ la jéng yooyu yëpp ngir nga mun koo am xoolal ñañ ko defoon démbu ñëpp dégg nga ña ngay kontaan ña ngay bég ña ngay sawar ña ngay kontaan fecci ngir lan aw ngir coono bañ amoon ci ndaw wallahi gannaaw ga bañ mokale alquran de nga muti yi jeeku na ñel len de nga ndax moy lépp moy buntu bi kon nak fa innahu babu lisaliki moy buntu kep ko koo xam ne mu ngaa sóobu rek te moy alquran yalla yàlla dëgëral ñoo alquran yalla yàlla taxaw ñoo alquran yalla yàlla jappal ñoo alquran اللهم إليك أشكو dan fa وقلة هلتنا qillata وهوائنا على الناس يا hawaina راهمين salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.